li waral jotaay bi mooy dama ñëw pour wax ni ci kanamu àdduna ne maa ngi jàppale Lat Diop suñu frère ci élection municipale yi ñu jëm muy élection municipale deux mille vingt deux di ay élection wu gox lu waral loolu yéen ñu ci bëri fii gis ngeen. ni Pastef bi ma nekk am na ay problème ci primaire yi am lu ñu boddi am lu ñu yëkkati gor nag boo ko beddee si loo xamante ni yaakaar naa moo fay ay laafa moo fay des ay duggam bari nga boole ko beddi ko yaakaar naa kooku bu dee gor bu ñu waxee si mi ngi si moom dina jël décision C'est un choix réfléchi, concerté et assumé. Comme je l'ai dit, la Diop n'a jamais été épinglé pour faute de gestion, en tout cas pas à ma connaissance. Malgré qu'il ait géré plusieurs départements très stratégiques où il pouvait voler beaucoup de milliards, mais à ma connaissance, on n'a jamais épinglé la Diop pour faute de gestion. J'ai vu tous les candidats qui se sont venus vers moi et j'ai vu que l'Aide a le meilleur profil. C'est pour cela, après concertation avec la base, on a décidé de le soutenir pour les élections de 2024. waaw li xew li xew Pastef yaakaar naa euh, ñëpp dégg nañ ko war a xam ne dafa amoon ay primaire pour ñu désigner candidat bi nga war a xam ne moom mooy dem pour candidater à la candidature on était cinq man yàlla xam na ni bëgguma woon sax nekk candidat parce que dama ma jot bi parce que boo nekkee candidat coono la ak sama liggéey ak sama activité mayu ma ko base bi ñoo ma ni ñëw sama kër def délégation ni ma il faut nga nekk candidat ne serait-ce que pour ton nom ma ni garaaw mu nekk candidat bi ñu nekkee candidat ñu teg ay critères ñu éliminer trois candidats mu des deux donc deux candidats yooyu noonu am na si kenn koo xamante ni man sama élément la te kooku incha allah dinaa am si la jóg waa première tranche la ma soutenir ko ñu xeex ba gañe lépp mais ki ñu doon xeexal dafa jege xëj na kilifa gi bi ñu demee ba si biir ñooñu léegi bàyyi leen ndax décision bi ki koy jël dina leen woo appareil ba tànk ba tey jox ñu décision. jotuñu motivation décision bi mu nekk une frustration totale au sein de Pastef Sud et de Pastef Gueye direction générale frustration yooyu noonu am na ñoo xamante ni responsable yoo xamante ni dañoo ni ñoom dañuy gérer seen activité am na si ñoo xamante ni dem leen jàppale ñeneen am na si ñoo xamante ni nag comme man ak ñi ànd ak man dañu ni ñun dañuy xool candidat bi nga xamante ni moo gën a dal suñu xel moo gën a crédible moom lañu gën a xam si affaire gestion ñu jox ko suñu mairie loolu moo waral sama sabab ma ni kon élection gox yi ñu nekk nii ndax ku nekk sa gox bi nga dëkk yaa xam li fa gën yaa xam ci fa gën nga nga nga choisir ko man si condition yi laa nekk c'est ça laa nekk ba léegi ba tey. te pour xamal aussi que du du frustration ba ma gën a passé non donc li ma fa génne question de principe la moo fa dugaloon principe également moo tax jàppale wu ma candidat bi nga xamante ni xëñ na moom lañ xaw a forcé ñu pour ñu soutenir ko donc question de principe la